salaamaaleykum salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp leen jox seen wàccuwaay lii wax ngeen partagé ko ñu yaatal ko incha allah ñu def benn waxtaan ci li nga xam ne mooy lëmbe réew mi di huit milliards yi Macky Sall jël ci suñu àll jox ko Marine Le Pen tubaab yi yeeg adduna bi ñëpp di ci wax ñu indi ci ay waxtaan indi ci ay information ngeen partagé ko mu yaatu ba Sénégal gépp dégluñu ñu ñu wax leen liñ ci xam te Macky Sall di ko nëbb maa ngi ciy dikk partagé leen ko mu yaatu incha allah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di Euh, waaw waaw waaw ay ayca ay ayca ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp leen jox seen wàccuwaay di wax na ko na ko ñëpp partagé ku ko mën a partagé rek nga partagé ko mu yaatu incha allah. nañu ko yaatal mu yaatu na yaatu na yaatu ndax yéen a ngi may dégg ndax yéen a ngi may dégg son bi baaxul allo allo maçon bi ñëw na d'accord ok ñuy partagé ko mu yaatu na yaatu nañ ko gën a yaatal ñu partagé ko mu yaatu ñu tàmbali waxtaan bi nañ ko yaatal nañ ko yaatal ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay eh, gis ne xëy na am na ñenn ñoo xam ne am nañu conscience citoyenne conscience politique ak bëgg seen réew bu mat a mat sëkk sëkk sëkk sëkk bu wax bu tax tey ak démb ba léegi ñoom ñëpp ci loolu la ñuy wax mooy juróom-ñetti milliards yi Macky Sall jël ci suñu alal jox ko koo xam ne day xeex nit ku ñuul koo xam ne day bañ nit ku ñuul koo xam ne bés bu nekk tubaab boo xam ne mi ngi nekk France judd ci bañ nit ku ñuul baayam di Marine Le Pen doon xeex nit ñu ñuul ñi dem ba màggat ci xeex nit ku ñuul moom doomam jooju di Marine Le Pen ñëw doon nu bàyyam ca parti politique boobee ñuy wax Front National te njujj ko léegi Rassemblement National mu nekk ca bopp boo nekk parti boo xam ne bëgguñu nit ku ñuul bëgguñu kenn ku jóge bitim réew ku dul seeni doomi réew ñu nekk nag ay patriote ñoom ay patriote lañu waaye patriote bi mooy seen bopp d'abord seeni réew d'abord wu xeet d'abord ñoom ñooñee la Macky Sall dalal ki nga xam ne moo nekk ca bopp ba di doomu Fra euh, doomu euh, Jean-Marie Le Pen doomam ju jigéen ju ñuy wax Marine Le Pen di ko wuutu ca bopp parti boobu nga xam ne parti bi bëggul nit ku ñuul da koy da koy dàq ndax nee nit ku ñuul moom jaam la nit ku ñuul du dara nit ku ñuul moom ci lii sewuñu nit ku ñuul dañoo salte nit ku ñuul ñoom soxlawuñu leen ci seen dëkk tubaab bi ñoom tubaab bi ñoo gën nit ñu ñuul ñi nit ku ñuul moom bàyyi ma la du nit ñoom seen parti loolu la ñu gëm. parti boobee nag ku ko jiitee di Marine Le Pen di doom ci Jean-Marie Le Pen moom la Macky Sall dalal 18 janvier bii weesu mat na ñaari weer lu topp ci biir Ndakaaru ca pale ba dalal ko fa waxtaan ak moom jël ci suñu xaalis lu toll ci juróom ñetti milliards jox ko ko di ko ko jàppalee ngir li nga xam ne moom lay liggéey te mooy xeex nit ku ñuul ak dàq immigré yi nekk ci France di liggéey nga xam ne lu ñu liggéey weer bu nekk ñu yónnee ko seen i mbokk Sénégal ñu dund ci. tubaab boobu ne moom bu jëlee France bu jotee réew mi day génne immigré yëpp dàqale ci biti tëj frontière dootul bàyyi benn sénégalais wala benn africain nit ku ñuul di dugg France ndax dañuy yàq France dañuy yàq seenu xeet ñoom dañoo weex te ñun dañoo ñuul kon ñoo ñu gën a set wuñ ñu ci seenum réew moo tax muy xeex ngir bëgg a jot France nangu ko ci Emmanuel Macron wala képp koo xam ne mi ngi wujje pour jël réewum France téye ko ba dàq nit ñu ñuul ñi kookee la Macky Sall dalal Sénégal woo ko ba mu ñëw mu dimbali ko ne ko danaa la dimbali ci li ngay xeex nit ñu ñuul ñi ngay xeex pour bëgg leen a génne France ndax dañoo salte baaxuñu ay nit ñu bon lañu man Macky Sall dinaa yëkkate ci xaalis xaalisu nit ñu ñuul ñu Sénégal yi lu mat juróom-ñetti milliards jox la ko ndi dimbalee la ko ngir nga mën a def li nga bëgg mooy jot ci réewum France ba dàq leen ñoom ñëpp génn leen ñu ñibbi si Sénégal ñoom ñëpp lii la Macky Sall defal tubaab boobee di Marine Le Pen tubaab boobee di Marine Le Pen nga xam ne France ga mu dëkk sax banque yi duñ ko lebal xaalis France ga mu dëkk kenn du ko jox xaalis France ga mu dëkk bëgguñu ko ndax ñoom ñi ëpp ci tubaab bi nee nañu bëgguñu ko ndax politique bi muy doxal te mooy politique bu bañ aw xeet wu ñuul politique bu bañ diine lislaam ndax ñoom bëgguñu lislaam bëgguñu nit ku ñuul parti Marine Le Pen ñaari noon la am muy nit ku ñuul ak lislaam ñoom la ñuy xeex France mooy seen taxawaay bi gën a rëy ci France mu nekk nag parti bi ëpp doole ci France waaye mënuñoo fexe ba gañe élection yi ndax saa su naree gañe rek ñu sot leen sot biñ ngeen di sot nag moo tax mënaguñoo gañe waaye ñoo ëpp doole France ndax bëgguñu nit ku ñuul te bëgguñu islam ñooñee la Macky Sall dalal Sénégal jox leen juróom ñett ci suñuy milliards ne dama leen di jàppale ngir seen bañ diine googu ak islam boobu ak seen bañ nit ku ñuul kooku ma jàppale leen juróom-ñaari milliards gën leen a dooleel ndax ngeen mën a am xaalis mën a gañe France téye ko su boobaa ngeen tëj jàkka yi tëj jumaa yi dàq nit ñu ñuul ñëpp jullit ñëpp ngeen génne leen France loolu la Macky Sall def il faut Sénégalais yi xam li xew yéen a ngi leen nemm kenn waxul mu mel ne dara xewul li Macky Sall def moo gën a garaaw lu Macky Sall mas a def ngeen ne xujju taxaw di xoole kenn du ci wax. kenn wax ngeen ne tekk taxaw di xool mel ne li def dara newu ci kenn waxu ci c'est extrêmement grave. da ngay dem ba yàgg nga ne Sénégalais yi est ce que ay nit lañ diaspora bi immigré yi nekk France ñëpp a ngi ne nem yëguñu ko sax tànnuñu ko wala boo yëgee duñ duñ wax dara de ña ngay wax waxi Tunisie dañoo lay dafa raciste dañuy gën mais Tunisie ngeen di wax da ngeen yeb naar yi da ngeen a yeb tunisien yi jamono bi ngeen naan président tunisien bi dafa raciste ma nga naan ni ñu ñu ñëw nañu génn Tunisie. nañu boycotté beurre Jadida nañu boycotté tunisien yi nañu nañu nañu nañu jamono bii yéen ñëpp ngeen di wax loolu mais yéen ñi nekk France Marine Le Pen Front National mais yéen xam ngeen li muy politique bés bu nekk mu wax ko toog ci télé bi ñëpp di wax buñ jotee réew mi immigré dootu fi duggati buñ jotee réew mi dañuy tëj jàkka yeeg jumaa yi yëpp ñun bëgguñu lislaam bëgguñu ko ñuul bus bu nekk mu wax ko fi loolu moo tax banque yu bari ak ñu bari duñ leen jox seen xaalis boo ñu am jafe-jafe ci ay xaalis léegi di dem bitim réew di fa uti xaalis bitim réew yooyu ñuy uti xaalis nag bokk na ci Sénégal dem na fa toog ak Macky Sall Macky Sall jox ko ci suñu xaalis juróom-ñetti milliards pour jàppale ko ngir mu am doole bu bu ëllëgee bu jotal ci réewum France dàq nit ñu ñuul ñu seen doom yi nekk France di liggéey di leen yónnee xaalis ñoom ñëpp dégguma kenn ku wax ñu ngi ne miig te ñoom ñoom wax de ñi nekk France di liggéey di taaba taaba weer wu nekk ñu yónnee Sénégal lu ngeen lekk. yeen ñi taba taba Marine Le Pen ni Macky Sall jox juróom-ñetti milliards diko ko ngir mu jot ci réewum France bis bu ci jotee doot leen lek da ngeen ñibi Sénégal yeen ñëpp parce que loolu la Macky Sall yi liggéey dafa bëgg ngeen ñibi Sénégal dem toroxi wala ngeen jox xex ko dagalé France def rassemblement bu mag France gep dem de ci kanamu siège front national ba génn France dem ci radio yeeg RFI dem te eh, France 24 yeen ñëpp ngeen génn immigré mais du ko def de da ngeen di toog buñ nee màggal ngeen ma sha allah jox sama xaalis buñ nee gam ngeen genn melni ay weñ buñ nee sëriñ bi ñëw na ngeen daw pëyi pëyi kenn ngeen melni ay dof waye seen ay intérêt bop du ko sam mu kenn du juk kenn du wax te du won na fekk ngeen dajalo samedi bi weekend bi immigré yépp juk def rassemblement bu mag dem devant télé France yi yëkëti France yépp wax leen li xew li Macky Sall nekke ak alal ji muy jël alal Sénégal yi diko ko jox ko xam day xeex nit ku ñuul day xeex l'islam ba ñom tuba bi ñi ëpp ki tuba bi nenañ duñ ko jox seen xaaliss duñu and ak mom duñu ko fal ndax bés buñ ko falé li dal Tunisie tey ba ñëpp naan nañu bu buñ jënd dara lu jóge Tunisie nañ leen bàyyi na ñëpp génn Tunisie bis bu Marine Le Pen jëlee France moom ko nekk président ba ca kaw noonu la de def France dañuy bàyyi produit France yëpp moo tax français yi bëgguñu mu falu ba duñ ko lebal xaalis duñ ko jàppale duñ bokk ci parti am Macky Sall kooku la dalal jox ko juróom ñett ci suñu ay milliards ngeen ne ndee mu toog di xoole ana ñuy wax ay patriote lañ ñu pari na nemm li ñu mën mooy nekk ci réseau yi di mbelelelelele doo ci gis kenn kenn du wax lu am fulla duñ ci wax lu ñàkk fayda doo nga la ñuy dajaloo di ko wax lu ñàkk fayda waaye lu ne kët na yoon loo xam ne lu scandale loo xam ne c'est une crise internationale li Macky Sall def loo xam ne tey li ñu doon manifester France ak al diaspora bi yëpp amul njariñ li jara manifester mooy lii diaspora bi yëpp war a génn na ñu nekk France génn média yëpp wax ci ba xam ne Macky Sall extrême droite la maanaam Macky Sall xénophobe la Macky Sall baaxut Macky Sall day fekk kuy xeex aw xeet kuy xeex nit ku ñuul mu jël juróom-ñetti milliards jox ko di ab tubaab loolu tey jii waroon naa fekk diaspora bi ñëpp dajaloo moodu moodu yeeg ñiy liggéey ñëpp dajaloo télé yeeg rajo yeeg ñëpp dem ci association yi ci tubaab bi kenn ku nekk fa ngay liggéeyee nga fexe ba jël photo Macky Sall ak Marine la Pen imprimer ko ci sa saak boo demee fa ngay liggéeyee nga séddale ko jox leen ñëpp ne président Sénégal bii Macky Sall moo jër huit milliards ci réew mu toll ne Sénégal nga xam ne liggéey amu fa dara amu fa ba yéen sénégalais ngeen dem di liggéey ci dëkk tubaab yi dëkk boo xam ne Marine Le Pen nee na bu ko jotee ñëppay génn France kenn du fi desati jox ko juróom-ñetti milliards di ko jàppale ngir mu jël ci réew mi ngeen seen collègue tubaab yi rajo yeeg association yi tubaab yi yeeg ministère yi dem devant ministère des affaires étrangères dem Élysée dem France 24 Afrique association de l'homme ñoom ñëpp ñu wax Macky Sall li mu lënkaloo ak Marine Le Pen benn tubaab ñemewu ko li Macky Sall def ak Marine Le Pen amul benn tubaab en France bu ko ñeme ñoom ñëpp dañ koy daw kenn ñeme wu ko jox dërëm ndax idée yu bon yi mu am ak xalaat yu bon yi ak yàq gi mu nar a yàq France bu ko jotee ci tëj jumaa yi ak dàq nit ñu ñuul ñi Macky Sall moom ne ko kaay fii ma jox la xaalis ngeen taxaw ne ko judi xoole di wax ay waxi leew na ñeseen waxi Touba waxi Daaru Mufti waxi euh, géej gi waxi Layen waxi Tal Tal yooyu rek lañ ñor wax yu wax yu wax yooyu nga xam ne tojul fenn ci yooyu rek ngeen wax guddi ak bëccëg waaye seen njëriñu bopp ak leen jëriñ du leen jox mukk ku leen def lappatu ku leen def ay jam ku leen lor rek waye kep ngay top waye li seen njëriñu bop du ngeen ci jog taxaw wax motax du ngeen ay nit lan motax Macky Sall da dalal Marine Le Pen Senegal le 18 janvier bi ci biir pale bi dalal goo xam ne da ko ne dama koy nëbb bëgguma kenn yëg benn foto du ci wax benn journal du ci wax RTS waxu ci kenn waxu ci daf na ko benn image du ci génn benn photo du ci am benn vidéo du ci am benn télé du ko wane lu tax ba nga demee bay dajeeg Marine Le Pen Sénégal di dajeeg moom ci pale bi di ko jox juróom ñetti milliards ba noppi di ko nëbb li nga li ngay def lu doon lan moo tax Macky Sall def loolu lan lay nëbb lan lay nëbb lan la Macky Sall di nëbb ci jox juróom ñetti milliards Marine Le Pen la Marine Le Pen soxla woon xaalis ba ñu jaay seen siège parti fa mu nekkoon jaay ko jóge fa dem uti feneen ndax ñàkk xaalis ak ay frais yu baree bare ay bor yu ñu am ñu dem lebi xaalis Russie ci ay xaritu Vladimir Poutine ñu lebal leen huit millions d'euros coow li am ba ne ci campagne bi weesu Emmanuel Macron toog na ki télé bi jàkkaarloog Marine Le Pen na ko yow nax nga bëgg a yoree France dem ci ay noonu France di fa lebi xaalis dem bëri suñu la jox xaalis Marine Le Pen tontu ko ne parce que réewum France kenn nanguwuma lebal xaalis yéen yéen a teg seen i système boo xam ne man Marine Le Pen mi yor parti bi nga xam ne su ma ko jotee damay tëj jumaa yi ñi fu ma dem di la xaalis banque yi la bañ na duñ ma lebal xaalis ngir ma mën a def sama politique ndax yow Emmanuel Macron yéen ñii nekk France yéen a ma xañ loolu banque yi kenn nangu ma lebal xaalis moo tax ma dem jéggaani ko ci biti dem jëri suñu jox yi fekk ko ci ba cooli am mënatu koo fay ba cooli am ci cooli na kur may ragal nag huit millions yooyu mu leboon ca Russie te mënu koo fay est-ce que du moom la ko Macky Sall jox tegal ko ci dara ne demal nga fayi sa bor boobee léegi lu tax Macky Sall jox ko huit millions d'euros lu tax Macky la jël huit millions d'euros jox Marine Le Pen ndax daf ko ko jox ngir bor ba mu amoon 2014 ca Russie te mënu koo fay ba coow lu baree baree am ci tubaab bi bind ci rapport yeeg yëpp Mediapart wax ci ba tax coow li am est ce que du loolu la dem Macky Sall fayal ko ko ci Vladimir Poutine Macky Sall lan la seq ak Poutine ak lan la bëgg ci Russie yi nga xam ne fan yi fa lay jëndee ay armes ay balu fetal lan la dugganteeg ak waa Vladimir Poutine lan lay mun munu ci suuf ak lan la seq ak France ak Emmanuel Macron ndax dañoo réeroo ci troisième mandat bu mu bëgg Macron ne ko du ci am ak yeneen ak yeneen ba moo tax mu futteeku noonu dem bëgg a dugganteeg Russie ci ay dil yoo xam ne mi ngi koy seq ak xëy na Russie di ko seq ak Marine Le Pen di parti extrême droite boo xam ne bëggul nit ku ñuul bëggul islam Macky Sall jël ci suñu juróom-ñetti milliards juróom-ñetti milliards di ko ko jox muy douze million d'euros lu tax Macky Sall def loolu di ko nëbb ancien premier ministre Hadjibou Soumaré moo bind di ko laaj ne ko Macky Sall damaa dégg ñu ne da jël juróom ñetti milliards jox ko marin Le benn ñaareel bi dégg naa yaa ngi waajal pour fexe ba tuxal élection yi nga xam ne mooy jongante yi war a am fii ak at pour tànn kii jiite réew mi ndax yow doo ci bokk te dégg naa da nga koo bëgg a tuxal yooyu yëpp Hadjibou Soumaré laaj na ko Macky Sall te Hadjibou Soumaré xam ngeen du tappale kat du waxkat du koo xam ne day sos ba mu wàccee ba léegi ci la wax kenn dégg ko. mu ngi def liggéeyam toog jàpp njàmburam bu demee nag moom agré bi Soumaré ba génn am laaj yu muy laaj Macky ci wàllu xaalis bi ak yeneen yu mu bëgg ci wàllu duxal ay élection Macky Sall tontuwu ko ba léegi yónni ay ne ki ay mbelelaane ne ko ñu génn di fen ku mel ne Abdou Karim Abdou Karim Fofana def ay communiqué gouvernement xam nga ñoom dañuy fontoo askan wi dañuy fontoo askan wi bon dafa mel na live bi gis na ko muy mel luy waaj dag comme yeen du ngeen partager du ngeen aimer du ngeen def dara da ngeen tok di deglu bu ngeen noppé dem teddi da ngay dem ba yag nga ne est ce que ñi ngay waxal jot nañoo waxal sax est ce que jot defal live est ce que parce que ñoom jéemuñu dara dañuy nekk ci ab dëkk di fa fortaate bo leen dàq ñoo ci bëggu ñun ñi waye bu ñuy xex pour loolu dañ kenn du ci xex yeen da ngay tok seetaan rek heure bi waroon te organiser wu une autre diaspora française bi Italie Espagne Portugal États-Unis na ñëpp djok. du manifestation en France kese de diaspora àdduna bi Sénégal Il y a jóg Ni ñu manifester def ay photo Macky Sall ak Marine Le Pen Macky Sall ak Marine Le Pen jël ay billets en euro 12 millions d'euros def ko ci photo yi def ay pancarte yi mak, ay bâche def ci photo Macky Sall ak photo Marine Le Pen def campagne internationale def ko Londres def ko New York def ko Paris def ko Rome def ko Portugal def ko Barcelone def ko fépp ci àdduna bi Asie Japon ñëpp ba ñoo xam ne Macky sàll tooñ na diaspora bi Macky Sall mi ngi fayonte diaspora bi Macky Sall tooñul Sénégalais yi yéen ñi nekk ci diaspora bi yéen la Macky Sall tooñ maa ngi woo diaspora sénégalais bi dëkk bu waay mën a nekk ci diaspora bi na ngeen dajaloo rapidement sénégalais yëpp ngeen defal seen ay pancarte seen ay bâche banderole yu mag a mag ngeen def ci photo Macky Sall ak photo Marine Le Pen def ci douze millions d'euros muy xaalis boo xam ne nee nañu Macky Sall da koo jox Marine Le Pen ngir jàppale ko ko ci politique gu xénophobe politique gu raciste bi muy politique na ko àdduna bi yëpp xam-xam kan mooy Macky ak lan la nekk ci réew moo xam ne nit ñi lekk ñu naan ñu mënuñoo faju mënuñoo dem mënuñoo dikk nit ñi ña fa ëpp ci ñi réew mi ñu ngi bitim réew mu yéen ñi may déglu nekk ci diaspora bi li ngeen di fortaatu ngeen di yónnee Sénégal di ci dundal seen njabootu kus néew ndax Macky Sall jox leen ñu lekk jox leen ñu naan faju leen mayu leen jàmm ñu ngi yóbbu seen fit ku yëngu mu tëj ku yëngu mu rey moom Macky Sall loolu la fa nekk te alalu réew di ko séddoog ñenn ki sëriñ si ak di ko jël di ko jox tubaab bi ku mel ne Marine Le Pen nga xam ne bëggul nit ku ñuul bëggul diine bëggul islam moom la Macky Sall jël juróom-ñetti milliards ci suñu xaalis jox ko ko te démb gis ngeen ko nee na moo demoon ca xadara ba toog ca Medinatu Medina Gunaas naan day xadara day day salaatu alal fatiha moom Macky Sall mi def loolu moo suñu koppar di ko jox ay tubaab yoo xam ne diine la ñu bañ bëgguñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgguñu lislaam bëgguñu nit ku ñuul ngeen taxaw ñu xujj taxaw di xool di ma xaar ba kañ lépp maa koy def maa koy wax bu du Ousmane Sonko di Akhenaton bu dul Akhenaton ngeen toog croiser les bras toog xaar ba di xaar Sonko wala di di xaar Jiji wala di xaar di xaar di xaar ba kañ ba kañ lii ba kañ parce que yéen garawul quoi jël huit milliards suñu xaalis jox Marine Le Pen pour yéen loolu garaawul du dara non non Macky moom miin nañ ko ah Macky de moom ngeen avancé bàyyi jàll ngeen bàyyi mu jàll ah ngeen bàyyi mu jàll waaw YouTube bi kenn abonné wul Fatou Kiné Diop très bien suñu YouTube activiste yi kenn abonné wu ci d'ailleurs daañu bàyyi live bi ci Facebook bi sax di ko def ci YouTube bi léegi ku ñu bëgg a déglu di nga dem abonné ci ci YouTube bi forcément waaw ndax xanaa suñu page bi liñ ciy wax yëpp xanaa du xanaa da ngeen naan amul njariñ kenn du ci abonné page YouTube activiste yi kenn abonné te moo gën a fiable parce que Facebook bi day dagg rek Facebook bi kenn boo ci live signalement yi YouTube moo gën a dëgër. moo gën a fiable di ci def ay live xam naa fa laa jëm damay mujj bàyyi Facebook bi di def di live YouTube directement ci page parce que moom moo gën a stable boo ci live kenn du ko dagg kenn du ko mais Facebook bi moom bay boo ngeen waajal yéen ñëpp dem ca page ba page page YouTube activiste page bii may live am na YouTube ngeen dem abonné fa yéen ñëpp di ko partager fa laa jëm. voilà kenn du ci wax ñi ngi ne nemm toog di xool lu leen Macky Sall sëf ngeen sëfoo ko li leen ñor daal mooy sama sëriñ bi sama gàmm gi sama daayira bi sama doomu sang bi sama man jaam laa yooyu rek moo leen ñor yooyu daal mën ngeen ci xuloo xeex waaye li leen Macky Sall di wax ak di leen sëf di ngeen bu dee gàmm ak màggal ak cant ak ngeen rek loo dem jëli kër sëñ Touba kër El Hadj Malick fee tabax bam ne booy toog doog rey nag yi sipp sepp yu diw yu nii nii waaye nag Marine Le Pen bi nga xam ne moom bis ba jëlee réew bi yéen ñëpp ngeen génn réew mi ndax defu leen fi dara Macky Sall jox ko juróom ñett ci suñu milliard ngeen waroon na génn France Italie ñëpp Belgique Espagne ñëpp Angleterre ñëpp taxaw diaspora bi taxaw def ay manifestation yu am doole àdduna bi yëpp xam li Macky Sall nekk ci ak mbon ak ni muy pasar pasaree alalu réew mi nim ko xaña diaspora bi xañ ko seen mbokk ci réew mi di ko jox ay tubaab yi bon yoo xam ne islam la ñuy xeex ak nit ku ñuul ngeen taxaw ne xujj taxaw di xoole di wax ay waxu Tunisie ay lii kërë kërë bàyyi leen Tunisie li ngeen war a wax du Tunisie li ngeen war a wax mooy Marine Le Pen ak Macky Sall li ñu nekkee ngir bëgg a toroxal sénégalais yi nekk France loolu ngeen war a wax waaye waxi Tunisie du ay wax. aagi bu Soumaré moo ko laaj laaj bi ne ko ndax da ngaa jox Marine Le Pen douze millions d'euros Macky Sall tontoogul ba léegi ne ko nag lii dégg naa ko ci salon yeeg club yi aagi bu Soumaré am na ay réseau xam na li xew am na ay réseau ancien premier ministre la xam na li xew li mu dégg laaj bi mu laaj am na fu mu ko déggee am na lu ma am na lu xew lu tax Macky Sall yi na bëtu au lieu que Macky Sall tontu ko muy yónni ay Abdou Karim na yi kenn xamul fu ñu jógee ki ay sagaru nit yoo xam ne duñu dara ñu toog naan ay communiqué gouvernement le gouvernement mais ñun dañoo wax waxi gouvernement luy gouvernement lan mooy gouvernement luy gouvernement ba ngeen ñu tontu ay waxi gouvernement seen yëfu tappale yooyu Abdou Karim Fofana di xawma mooy porte parole bu ñu demee ba Abdou Karim Fofana nekk porte parole gouvernement Sénégal Sénégal daa am gouvernement Abdou Karim Fofana ni ma xam bu ñu demee ba muy ba moom mooy taxaw def ay communiqué au nom du gouvernement du Sénégal Sénégal yàqu na Abdou Karim Fofana mooy def communiqué di tontu naan ay non mais c'est mais réew mi non réew mi ni ko Ablaye Wade ak Macky Sall yàqee dañ dafa ëpp xaalis corruption kese te li Macky Sall def yëpp ci Ablaye Wade la ko jànge Ablaye Wade fi njëkk a taxaw fekk ab représentant résident bu FMI Euh, kii Ségura Alex Ségura bu def mission Sénégal bay waaj a jeex Abdoulaye Wade defal ko gaalu xaalis ne ne da koy geer ay centaine de million millions jël def ko ko ne ne jox leen ko comme day ñibbi Abdoulaye Wade mu rëyu fit kuy fekk ab fonctionnaire international bu Fonds monétaire international liggéey Sénégal ba mission am jeex di ñibbi nga naan ko dama lay jox ay centaine de millions cadeau Abdoulaye Wade moo dëgër fit te rëyu fit man de ji waay moom a jaaxal da xool ji jëf ku mas la gis lu mel ni Abdoulaye Wade moo a jaaxal xanaa booy corrompe di ger ay sëriñ di corrompe sénégalais yi bàyyi fi ab tubaab buy liggéey FMI banque mondiale ñooñu nga xam ne seen charte yi dañ cee li ñuy njëkk a tere mooy ger ak corruption charte yi et institution de Bretton Woods FMI banque mondiale Abdoulaye Wade xam na lépp de waaye Abdoulaye Wade bon mu ne day corrompre Philippe Séguda boobu Macky Sall fi nekk de moom Macky ànd boobu Macky yóbbu woon malet bi di Macky Sall nii saa yi Abdoulaye Wade masaano ger nit ñi di leen lay woo ñoom ñaar koy defandoo moo tax Macky ci tànk Abdoulaye Wade la jàngee lu bon dong la xam xamul lu baax xaalis dong la ñu xam ni ñu ko mën a amee baax na gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi Abdoulaye Wade ak Macky Sall yem kiif kiif na Abdoulaye Wade defoon Alex Ségura di ko jéem a korom tey noonu la Macky Sall def même fee bi la def na ab Abdoulaye Wade jëfe woon rek la jëfe waaye nag da da koo ful di douze millions d'euros muy huit milliards moom la yëkkati ci suñu koppar nit ñi yéen ñi may déglu Sénégal lekku leen naanu leen leen a faju amu leen dara seen lépp Macky Sall teg na ci loxoom xañ leen ko di ko jox ay sëriñ ak i tubaab yu bañ diine képp kuy xeex diine Macky Sall ngi lay jàppale sëriñ si ñu jox xaalis bu leen yaakaar nañ ci diine lañ nekk de liñ nekk du diine système yi lañ nekk ñoom ak tubaab yi ànd benn lañ Macky di leen ger leen jox suñu xaalis ngeen taxaw di xoole loolu mooy li am ak Guy Soumaré c'est un inspecteur du trésor c'est un haut fonctionnaire bu nekkoon premier ministre xamewu leen ko wax ji bari xamewu leen ko dara bu demee ba wax risque yi mu jël taxaw def lettre ouverte poser ay question Macky Sall Macky Sall mënu koo tontu ba léegi di yónni ay gouvernement ay boja boja yo xam ne kenn xamul leen ay jaaykatu siddéema ki jaaykatu sumpa ki yelwaankat ay ñoo xam ay Karim Fofana taxaw naan ñoom ñooy tontu ak Guy Soumaré ñi yebaate wuñu Macky Sall la xaar mu génn wax ci wax ci Il ko defal une campagne internationale devant FMI banque mondiale fépp il bi union européenne la ñuy dem légui Macky Sall il fricote avec Marine Le Pen lay fricotel et puis